ak juróom-ñetti bis lañ am ngir amal seeni cours naam sax ndogal bu neex la. La reprise, bon, moi, je veux dire que c'est une parce que vu la situation qui actuellement toog nañu six mois yoo xamante ne nii jàngunu wante bari loolu ay gàllankoor. ñun ñu ngi fii donc étudiants yi la majeure partie nekkuñu seen nekkuñu fii ci Dakar très bien nekkuñu fi Dakar fii e loolu c'est c'est vraiment déplorable. étudiants yi toog lu tolloog juróom benn weer doon amal ay cours en distance mu mel ni jëwriñ ñi jiite bile université fas nañ yeneen organiser ay cours de remédiation laata ñuy amal ay examen bile décision ñëpp ànduñ si. man personnellement jàpp ma ne loolu lu baax la puisque foo xam ne ni foofu la ñuy defee ay théâtre ak yeneen soo ko bëggee yóbbu étudiant pour jàng mën nga xam ne boobu dafay am. pour nga pour nga mën ko def lu c'est-à-dire que il mu am lu ñu defaraatee disposition yooyu jàpp ma ne jël nañ ko moo tax ma yaakaar ne cours yi fii lañ ko war a defee te faculté bi nag loolu la war a loolu la war a xeex. naam sax dina metti lool ci étudiants yi ndax ñu ëpp si ñoom dëkkuñu ndakaaru wante mu mel ni rek lu mënul ñàkk faaw mu am. contexte bi fi mu toll pour la ne foo ñu jël benn décision boo xam ne du arranger ñëpp mais au moins dina arranger la majorité. ñëpp war a xeex pour que ñu ubbiwaat xale yi ñëwaat ndax enseignants yi ñu ngi fii pour que ñu tàmbaliwaat njàngale mi ci condition yu sell.